Malick ñaa ngi noonu xam nga ñeme maa ñëw wër naa ko fu ne nag waaye Malick waxal ak man. <laughs> non yow yaay mbër ak moom yëpp peut-être mën naa nekk mais Malick lan nga ñu dawee Malick. non dawu ma leen maa ngi laa gis woo naa la ba sonn nga ma tey suba wasaare ke dama lay weer tey. maa ngi de maa ngi jégalu maa ngi tuub jégalu bu baax. mais Malick ci lu mu nekk. maa ngi nii rek entraînement di sant waa Yoff yëpp vraiment ni ñu def ba boole ñaari écrits yi mu nekk benn man dama xol dafa sedd guy instant bi quoi billahi waaw di ñaanal yàlla. mais fan yi gisuñu la. ci lan nga nekk ci lan. entraînement suba entraînement ngoon si loolu rek laa nekk. mais dama gis combinaison yaa ngi taxaw fi mu toll nii su ma juumul yaa gaaga mboosu dong nga fi des. kenn wax ko dara kenn waxagu la. waxtaan bi neex moom doo tudd benn mbër quoi ku ma yàlla booleel rek ab jullit laa buy xëy di julli di ñaan yàlla ku ma yàlla booleel rek. baax na naataangoo laa bëgg a wax. amul naataangoo kon nga génneel ma ay Modou Lo ay Lac de bu dee morom ñooñu ñooy sama morom. Garga Mbossé dafa dem ba final ñu daan ko. mais daanu la man daan laa xam nga. waa léegi fi kan moo fi dem waa léegi ma kan moo fi dem final daan ku fi des. voilà foofu nga waroon njëkkee nag ñii dem final. ah kon Lac de Guiers 2 nga bëgg de Guiers 2 na daan na Modou Lo dem na final daan na na final daan na. mais am na combat Balla Gaye am na combat ñi amagul combat laay li moo tax ma indi la ñooñu mais ku ma yàlla boole rek baax na man ab taalibe laa rek bu oyof waaw. kon fi mu toll nii mën nañoo xaar Malick Niang tooyal xaftaanam bi bu ñu waxtaan seeg moom. Korité sax mën naa bëre Korité. Korité waaw. kon dinaa promoteur neen Garga Mbossé fi taxawal Malick Niang. non non yónni wu ma la loolu yónni wu ma la si benn mbër man li ma wax sama gémmiñ moom Korité sax mën naa bëre pare naa ah. waaw. waaw baax na kontaan naa ci yow. kontaan maa ngi jégalu si gëj a bi.